jërë ngeen jëf mbokk yi déglu bawal info point net tey nag euh, ñu seq waxtaan ak euh, Mara Diop moom mu nekk euh, candidat ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ci fi nga xam ne mooy commune bu Ndindi Ndindi nag nekk ci département bu Diourbel moom liste defar sa gox lay demee Mara Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu waa bawal info auditeurs yu yu bawal info. maa ngi leen nuyu kii na ku ne ci turam ak santam sant yàlla sant Cheikh Sidi Mokhtar gërëm ko ñaanal ko yàlla na ko yàlla yokki leeram waaye sant Cheikh Moustapha mi nga xam ne moom moo yanu yanu Cheikh Sidi Moustapha maa ngi leen di nuyu di leen sant Mara Diop euh, yow candidat nga ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal lan moo sabab hmm. nga samp sa ndënd lii sabab ma samp sama ndënd nag bëgg-bëggu askan wi ndax umpalewul ne ndindi ci tur lu lu lu lu màgg la dangay dégg ñu naan ndindi ndindi ay boo déggee ndindi da ngay defee ne ndindi comme la ne waaye boo wàccee ça da ngay am gàcce population bi ba demande bu population bi bëgg la sama candidature bi demande bu population bi bëgg la moo tax it bi président jëlee décision ne dañuy reconduire maire yi fi nekkoon ñun maire bi ñu xam ne moom lañ nekk gestion bi nga xam ne maire bi def na ko muy gestion bi nébuleuse Euh, maire bi arrogant aussi kanamu askan wi di leen jaay doole euh, di doxale noo xam ne ni néexul askan wi pour ñu pour gis-gis boobu loolu it du mu amee euh, ñu ni fekk na wàcc nañ ci terrain bi toog waxtaan ak ñoom discuter ak ñoom sottanteek ñoom xalaat ñu jàpp ne war na maa mën a nekk candidat léegi léegi Mara Diop Mara Diop yow nga bokk ci Benno Bokk Yaakaar nga bokk ci APR maire mhm. Ndindi di Cheikh Seck bokk per bokk parti socialiste di seen allié ci biir Benno Bokk Yaakaar lan moo tax président Macky Sall Cheikh Seck comme euh, mu jiite liste benn Bokk Yaakaar yow nga bokk ci kuréel googu beer sa làngu bopp. waaw coalition Benno Bokk Yaakaar ci nit ñi musta existé pour mu leer ndax coalition Benno Bokk Yaakaar depuis deux mille depuis bi ñu sa formé coalition bi ba ne élection bu ñu dem rek dañuy séparé wu loolu président xam na loolu ndax lu tax seex mi nga xam ne ma nga ca kaw di dugg di dundal pour coalition bi au niveau national boo dikkee au niveau local musu ci dundal coalition bi boo dikkee au niveau local considéré wut waa APR comme ñoom ay ay ay ay ay ay allié lañ déedéet adversaire leen def nit nag bu fekkee ne nag yow sa sa sab allié dalaa considéré comme adversaire politique da ngay jàmmaarlu moom ma dellu ci wax leen ne leen élection locale c'est pas des élections présidentielles c'est pas des élections législatives locales la ñu wax décision bu ci président war di mën a jël dañuy toog parti bi li gën a rafet mooy ñu ñu ñu dajale tendance ya fa nekk wala ñu dajale coalition bi ñu ne lii la ñu a def nañ leen ci sottantee xalaat waaye bu décision jekki-jekki rek tàbbi fii wàcc ñu ne nañu reconduire mairie yi fekk na mairie yi amuñu code de popularité ci askan wa ñu nekk mairie yi defaruñu seen toogaay ba wane le président de la république li mu soxla mooy ñu ànd loola yaakaar naa ànd du yomb mais est-ce que est Mara li nga def tamit est-ce que du risqué risqué woo dara risque mooy man ndindi mooy sama risque ma man di am ci àdduna ndindee ma ko président de la république ni leen ma ko gënal. mais xam nga yow sa jàmmaarloog Cheikh Seck yàgg na est-ce natt nga natt nga ko bu baax a baax xam ne boo demoon tey mën ngaa gañ. c'est pas la première fois du dem élection locale. yow sa bopp nga nekk tête man nekk naa tête de liste proportionnel bi ñu génn kii nekk tête de majorité bi ñu génn engouement élection yooyu man la woon Sénégal gépp xam na ne engouement élection deux mille douze c'est pas qui que ce soit c'est Mara ñu rawee li coow li bari bari muy wax di wër di ratatati mais élection yi est-ce que natt nga sa bopp élection natt na bu ñu demee élection nit ki bu fexe bu ne bu ne dafa bëgg a dem élection la tax muy dem élection population bala waa militant yi ak responsable man benn boo ko yaakaar bu nit ñi compris ins rek génn ci ñoom ñoo ma porte réew mi ñi ngi ci man AFP ñi ngi ci man kon yeneen alliés yi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo ko fekk ñoo ma porté comme ne yaay suñu candidat boole kooku la la majorité p PDS ñëw ànd ak ñun jàppale ñu donc li ëpp solo mooy que natt nañ suñu bopp ba war a xalaat ne war na noo mën a dem élection dem élection boobu incha allah rabbi risque ñu ci ànd ñu ñu jàpp ne nit ñi la ñuy xeexal ñoom jërëjëf Mara jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm